assalamu alaikum mbokk internet ibakan tv tay nak dañ len amal gan bu reuy gan bo xamne je pense c'est la première fois mu nara wax ci site bi ibakan tv ñu bayiko mu nuyo eh, mu sandi ñu tamit ñaan ci ci site bi la ko e tay ki ñu dakar la mu moy amadou kati job alhamdullilah ba hmm. ñu lay nuyo di la ziar mbokk talibé hmm. di am bekk bu baax Uh, daan la siiw nag lu bari say say interview say say bind yi ngay bind si journal bi wax dëgg yàlla di am kontaan bi mbékk ma bi tam di nuyu say say internet internet yi nga xam ne bi ñu siiw la ñuy siiw diñu la ñaanal jamm di la hmm. dalal hmm. yok la ba sa li mom mëna dem ba ci amin amin amin tabarakallah amin wa tay tank ñu andi mom moy je pense que cioli cioli bu légui fayagul combat hmm. gris bordeaux ak ballagay bi amon barki demb dimanche arena nationale yu ya andi won gris bordeaux bi ngay génn si stade bi préparation gri bordeaux ma préparation bi bon de dafa gàtt. Mhm. Euh, comme il a resté donc dafa toog na ñeenti at yoo xam ne vraiment. Mhm. Euh, yënguwul. Mhm. donc préparation bi diggante trois mois le le le, préparer préparé. préparation vraiment dafa gàttoon pour quelqu'un boo xam ne toog na quatre ans de compétition gëj na donc c'était c'était un peu difficile. waaw difficile parce que day métti kooku loolu day métti si donc c'était un peu difficile vraiment que préparation bi préparation bu gàtt dans daal lañ si mën

contact ak kii bi ak lutte bi quoi. yow ñaata euh, jour nga ko yor. bon c' est <coughs> presque un mois lañ ko lañ ko la la ko yore un mois ko yow bi ñu ko gisee un mois yi si avant un mois yi sa xel daloon na. Ah, bu baax a baax bu baax bu baax a baax. Hmm, malgré lu mu toogoon ñeenti at. waaw waaw bu baax a baax parce que déjà commencé na deux mois yoo xam ne liggéey na ko. waaw euh, doon na di travail di nekk hmm. si bi. bon hmm. comme xam nga tamit. këram mu ngi taatu géej. waaw donc euh, <laughs> bu xëyee dina def footingam bu ñëwee di. dix heures ba une heure dina dem euh, sa dina dina def salle. Hmm. Ah. Ah, bi yow bi avant ngeen di dem combat bi un mois yooyu donc formam yow ah, ah d' accord nga si forme bi mu yor. waay waay waay non hmm. tout à fait tout à fait donc forme bi gis nga ni mu bëree. Hmm. Euh, pendant euh, presque quinze minutes. waaw euh, genn wàllu temps bi le le le le bëree. Hmm. donc amu si woon problème. si si forme bi waaw. waaw ah, d' accord wàllu conseil lan nga ko conseillé woon avant arbitre bi di siffler. liñ koy conseillé conseil bi kañ mooy mu. <laughs> gëj na bëre donc il fallait que kuy mbeur mom buy bëre li ngay conseillé pour lu muy lu mu li mu war di daane rek wa mhm. donc il fallait que xool nga xol adversaire bi déjà étudier ko tamit lu muy indi mhm. ndax moom dafay indi xeex wala fay indi bëre donc dans muy nekk premier temps toujours donc

je te mhm. soo ko waxtaanewaat ba léegi na toogu ñu daal di waxtaan. Mhm. waaw arbitre sifflé mu daw dox ci kaw Balla Gaye de andil ko bagaar. Mhm. Ah, waaw bagaar boobu mu ngi wax te téléphone mu fay. téléphone arbitre bi sifflé Gris gis nañu moom moo déclenché la bagaar. waaw. wa mais c'est c'est tellement bari wax door la soit que da ngay da ngay songu bari ju soit da ngay da ngay door donc occasion fallait que mo déclencher bagarre bi wa lamb fam lamb lamb c'est way lambatu la lamb da ngay lambatu wa fi muy gëna noyé donc fofu la doon lamb fa mu ci côté bagarre bi mo lamb ci côté bagarre bi quoi mo ci côté bagarre mu lamb mu dominer côté bagarre lan moo ko teree eggali action bi lan lan lan. bon comme ni ma la wax léegi rek. waaw boobu ba léegi tooguñu. waaw ba ñu jël rendre euh, def compte rendu. waaw euh, wax dëgg yàlla demaguma fa si si këram. waaw ba ñu toog daal di waxtaan. Mm-hmm. mais mm-hmm. euh, li ko ko teree. Mm-hmm. àggali daal vraiment foofu la problème ba nekk. foofu la problème parce que ci boo ko dóoree mu kawate. waaw ba tànk yi tànk yi boo seetloo tànk yi dafa jaxasoo. waaw kooku nga xam ne kooku mm. bi dal na. dëgg la donc ñu yuuxu ne la dalal si kawam dalal si kawam dalal si kawam. Uh-huh. bon. dégg na ko déggu ko. waaw mais kooku même bu ñu la ko xoolee sax da nga war a dal si kawam. Mhm. waaw da nga war a àggali. waaw mhm. mais pour loo taxaw di ko xaar. Ah, waaw mais donc il a beaucoup misé sur la bagarre au détriment de la lutte on dirait moom bagarre la gënul misé. bon non c' est occasion bi la li làmb ji laaj la rek. waaw waaw parce que li làmb ji li làmb ji moom la laaj. Mm-hmm. côté boobu la waroon la gën a accentuer. waaw waaw xool fale que mu ñëw dal si koom wàññi ko. waaw d' mm-hmm. donc bi mu wàññi bi mu dal si koom gis na ne. Mm-hmm. am na bunta mais malheureusement exploité ko. gisoo foofu il était cuit physiquement. physiquement Gris Bordeaux. mais non non mënul <laughs> en cinq minutes. mënoo mënoo ñëw. da nga mën a jeexal ah cinq minutes mën a ko c' est impossible. mënoo ñëw daal di ñëw a ngeen def ngeen joxante. Mm. ngeen joxante nga daal nga nga nga ji nga na bu demoon ñu ne def na dix minutes yu yu si mm. biir bëre loolu jaaxalu la. non non pas du tout pas du hmm. tout ba bari hmm. la lamb la rek comme ni waxon sank lambatu la waxe na ak moko gëna souple mu go mu mu mu gën mu gën ko ci def am déplacement da di fédé ko yalla fess lem ngem nga nek sa wét sama gënu jot loxo da fay def wét ba mu lambé sa ngem la wol fofu hmm. da fa jot donc koku mënatu bouger tank ba mu mëna déplacer wu am rek légui du ko mëna kër voilà lol travail on

ab la moo manqué Gris Bordeaux. bon parce que travail bu suffisant rek moom moo def parce que temps comme ni ñu waxoon sànq rek. temps bi moo gàtt. temps bi moo gàtt temps bi dafa mm, loolu yëpp. waaw waaw nga ko indi ko toog 4 mm-hmm. bëgg ko indiwaat. Mm-hmm. loola jeex. Mm-hmm. condition physique physique beex. ah ak réflexe yu bëri bi ak yooyu yëpp waaw mhm. ah, ak ngëj su bëri donc yooyu yëpp dafa si joué parce que tamit làmb boo si gëjee lool mhm. yoo xam yoo xam ne daf si parce que li mu si gëj dafa yàgg un an déjà boo gëjee si làmb rek mun na mun na joué tuuti si yow sax mu la nga liggéey du ko toog quatre ans quatre ans ah, yow tey en tant que ancien leader combat bi combat bi nan nga ko jugé combat bu neex la ñaari mbëri nan nga leen di jugé. ah mais ñaar ñu mbëri ñu bëri nañu. Mhm. ba nit ñi kontaan. waaw <laughs> ñaari mbëri ñu bëri nañu. waaw ba nit ñi ñëpp kontaan. Mhm. bu dee dóor am na fa. waaw bu dee bëri am na fa. waaw bu dee songo demal nañu am nañu euh, ñaar sama ñetti kontaan. waaw ah mhm. donc. Euh, vraiment bëri bëri bëri nañu. bëri nañu voilà ah, bëri nañu. Euh, bi bi Gris Bordeaux daanu lan nga ko wax.

mën nañu wax ne na mu meloon ku bu njëkk melatu ne

loolu rek la constaté si moom. Hmm. waaw Bordeaux nag lan est am na. Bordeaux parce que euh, comme ni la wax sànq rek. waaw euh, boo toogee autant d'années. waaw bon aptitude yëpp du ñëw. di ñëw waaw <laughs> loolu. Hmm. ah gëj làmb. Ah. nga gëj gëj géew. Ah. beneen affaire lay doon. waaw hmm, foog nga ñu naan géew. Ah. fekkoon noonu par exemple am na ñoo xam ne sax dañuy dem bëri ji mhm. le temps sax dañuy dem bëri ji sa àll ba waaw di ñëwaat nga xam ne dañuy seen mhm. seen géew géew bi day ñëwaat waaw ñu ñu naat géew mhm. mais diggante bi génn génnul bëriwul fenn ba ma gëjee si làmb ji la gëjaat donc loolu moo fay manqué min géew min géew waaw xanaa ñu def bëgguma muy gudd trop hmm.